ci suñu façon ñu jox leen xibaar yu wér te wóor maire bu goxub Kumbam Lambane seen monsieur maire bu Géejawaay naka yow. yow gaa ngi nii rek la maire yi tey. sant yàlla naka gox ba. gox baa nga. Euh, démb fan la woon. Euh, ah waa démb de demoon naa fi Gunaas. démb demoon nga Gunaas waaw benn malade. huis clos. Euh, waaw après ñu réunion réunion des cadres. Hmm. xaw na yaatu nag. waaw ah, cadres yi moom moom donc c'est limité. mi ngi waaw mi ngi waajal séminaire bi. Eh, ñàkk suma bi man de wax naa la sax man daal xam naa ne séminaire bi. non yàgg naa la invité kan waaye baax na. non naa la na dem non bi damay ñëw. Ah. bi kay c'est confirmé. yàgg naa la woon bi moom c'est confirmé. ne la ñëwal ñëwal ñëwal ànd ak madame. ma invité la ci île di Saloum. nee naa la wutal la dëkkuwaay. c'est confirmé. <laughs> wutal la gaal. ma yëg ci gaal yi. waaw mu am moteur wala joow wutal la sipax li ma gën ah, loolu nga xam ne moom. ah waaw. yóbbu la yóbbu la visité loolu la yi. waaw waaw mangrove ah, <laughs> lii de xoolal. man naa naa ñëw ñu ne ma noo dem nañu et xam nga. boobaa man ah, sama a vendredi la ñuy dem bis tegu. waaw bien sûr ko de incha allah ba naa sama bagage ba noppi defar naa sama saak. <laughs> d'accord. nee ma rek yow telle place la ñuy daje. waaw. ñu dem ma ne la ñëwal ñu dem. jeex na ko yàgg naa la ko c'est confirmé. yàgg naa la ko wax de. loolu c'est confirmé. ah baax na. yàlla baax na. Euh, Paada Doña nga ne. Paada Doña maa ngi koy nuyu. tàmbali na delluwaat na mairie ba. ah alhamdulilah alhamdulilah wér na. ko ñaanal yàlla rek wér gu yaram. wér ak wér le. wér ak wér le. Mm-hmm. waaw wér ak wér le. ñu koy ñaanal bu baax. waaw léegi nag ñun moom ñun moom ñu ngi ci tractation yi di defaru. tractation yi. <laughs> ñan la ñuy àndal <laughs> fi ñu jëm dafa laaj rapport te dañu am affiche non non non non non tey ku muy andi tey daal di maître Moussa Diop <laughs> non non non waaw waaw na ko préparé waaw na préparé maître Moussa Diop ba njuree jaam ka ak ak kan ah ak kan? Euh, wala mu andi la rek teg la jogay ak jogay hmm? ak jogay mu andi jogay waaw jogay moom affiche de taille andil ko ko <laughs> amul benn problème. yéen nañ dem. yéen a kaay groupe des médias. ñoom yi neen la. cuisine interne. dañ leen bàyyi noonu. potum biir. tribune yéen a kaay ñëw ñun ci. Mhm. débat au troisième mandat. Moussa la maire. maître Moussa Diop. terminus. ndeysaan wàcc na. wàcc na bi wàcc na ko. waaye nga euh, journal bi nee na. Mhm. président mais fii nga waxoon ne. moom waaw moom mii moo tax may wax. bii mujjee mooy deuxième mandat. waaw bu ca paree pare na ca. Mhm. moom moo ko waxoon de. Mhm. nga mais punkal yi nekk ci ëttam bi ñu bëree bëri itam jàppale ko ci. ba ci ancien ministre. Fataha Diouf justice Ismaël Madior Fall. waa léegi lan moo xew ci diggante bi. ba président Macky Sall boo ko laajatee léegi mu ne la duma tontu waaw du ma tontu déet. ba mu jaral ko sax muy dàq ay nit. loolu la ñëpp moo tax journal bi ne nag ah loolu nag yeyool na ay laaj. Mm-hmm. ah non. li xew nit ñi di laaj. Ah, <laughs> lu xew. lu xew lu mm-hmm. xew. gis nga Walf Fadjri nañu gis nga administration bi bu doon dëkk la Macky da koo ñag xam nga ñag. comme ni def tool yi. waaye soldat la ko wëralee. dafa décréter état de siège ci administration bi mu wut mbaa mot troisième moom du fi jib ay troisième mandat nag moom moom tam na xam ne moom it troisième mandat dañ ko fi tere muut baa mot waaye moom tamit ci moom it muut <laughs> dégg Sud Quotidien ñëw ak ñun ci direction Dakar Dem Dikk mm-hmm. Macky Sall tëbal na maître Moussa Diop tey maître Moussa Diop aka porté woon combat bi dégg mm-hmm. source a ñëw ak ñun ci koppar gi ñu jagleel Famara Ibrahima Sagna mm-hmm. pataaral gi pataaral gi jaaxal na nit ñi de. dégg loolu troisième mandat bi nag mujj naa nekk poson monsieur le maire. troisième. pataas bu nekk na waaw. waaye olof Ndiaye nee na mi ngi nii gis nga ko nii. Hmm. bu doon olof la nee na dañ naan xaj ba mattoom Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté matt na maître Moussa Diop. waaye journal bi nee na loolu garaaw. ndax lan mais lan moo tax xaj boobee matt leen mattoon Mbaye Ndiaye mi dagalal troisième mandat. Mm-hmm. Martin Bougazeli mi daganal troisième mandat waaw professeur Moussa Diaw analyste politique la nee na gis nga lees waxul am na ca ok ah, non lees waxul am na ca mm-hmm. mi am na la ca rax ah waaye yow lan moo tax ba Macky Sall bëggul kenn ko wax ci mbirum troisième mandat réew mi quotidien nañu suñu mandat réew mi quotidien nañu suñu mandat troisième mandat bi daal dañ koy taafandaloo nak ah! dañ koy taafandaloo de dañ koy taafandaloo de té naa la wax lan motax après naa la ko wax box eh. boobu li ñëw ak ñin ci maître Moussa Diop journal bi né troisième mandat bi yóbbu na hmm dégg nga ab coup d'état constitutionnel ko di pé fii nii seen ci Fatou Abdou Ndiaye mm-hmm. fi la ko waxé won ñet ñi ñet ñi seen ñaar ñi seen len leen kenn ki RFM. seen TV tamit nag yéen it moom. Sori Kaba RFM foog ne léegi nit ñi duñ daw seen plateau yi. Moustapha ak. <laughs> fii Moussa Diop. fii seen show seen jotaay. fi la ko waxee. tey waaw dégg ministre boobu ministre boobu ñu doon wax ne. defagul déclaration de patrimoine am. Mm. critique yéen ak ay nee na Cheikh Oumar Anne la. waaye waa ministère weddi nañ ko. ñeneen def na moom def na déclaration patrimoine. monsieur le gis nga ko nii. xale bii moo dee ci Cambérène ñaar fukki at ak ñaar. Mm-hmm. ndeysaan xale la ci taw bi. ci taw bi mm-hmm. ci taw bi. Mm-hmm. dégg nga loolu. tey doy na l'observateur ñëw ak ci. dàqoo maître Moussa Diop. li ma la wax sànq. tey kay maître Moussa Diop. taafantaloo troisième mandat. mais xoolal rapport situation financier rek sociale bu Dakar dem dikk. yóbbu na ko de. animateur bi di ak Omaro. dañ leen a tudd ci wàllum escroquerie googu jantal maara. ndeysaan kenn xamul jërë leen ko rek. libération yéen kaay ñëwoon ñun ci Awa Diouf mi rey doomam ci jigéen ji ëmboon juróom juróom benn weer. dinañ ci dellu soit mooy tasu démb bi. mooy tasu démb bi nañ ci dellu soit. comme dugg na tës rek baax non non non yow koy bàyyi ba ci kanam la. les écoles yéen kaay ñëw ak ñun ci. Mm-hmm. mais yow centre d' examen bi Pikines Pikines bee. Mm. bureau principal ba bañ dencoon épreuve ya la ñu cambriolé. lii loolu épreuve la. waaye laalu ñu épreuve de waaye bureau ba de ah. heureusement ah doy na waar. buñ ko laaloon annulé examen président ndem si yàlla King Fat Palace. Mhm. Véronique Ndour nee na liggéeykatu King Fat Palace yi. am na ci ñoo xam ne monsieur le maire li ñuy dund fi mu nekk nii mais dafa mel ni racine si intouchable la kenn du ko laal. te ñoo wax. waaw seen njaatige li daal kenn du ko laal waa ji daal lu ko neex lay def. moom racine. kenn xamul lii lan la. ate troisième mandat. jafe-jafe yoo xam ni gaa yaa ngay leb ba ci tabaski bi moom ndaw si ci boppam am na ñoo xam ne sax moo leen jëndal. li yéen xaru tabaski. métti na le témoin a kaay ñëwoon ñun ci bureau chambre de commerce bu Dakar. Mhm. tontu nañu Serigne Mboup yekk nañ ko lu mel ni xamee. président Ablaye Sow ak membre bureau bi. xam le nañu carrément ne Serigne Mboup sax léegi fi mu nekk nii gaa yi daanaka dañ koo lalli. Mhm. waaw. te nag fi ne nii boo boo sàgganee danañ ko porte plainte de. na dem ki jëli ji maire bu Kaolack na dem. gannaaw waaw waaw kay voilà voilà. le quotidien yéen a kaay nañu ma ngoog. Moussa dem na dépôt. ca dem dëkk. ca yéen. laas a kaay nañu dëgg la Moussa troisième mandat bee ko yóbbu. Mm-hmm. <laughs> non man nag dëkk bii. Mm. dëkk bii. waay. troisième mandat yóbbu na ko. waaw kay waay dégg évidence yéen a ñëw ak ñun ci gars yi tam tontu nañ de ñu ànd ak sëriñ bu nee nañ ministre commerce Assome Diatta secteur général bii ñii ñoo ñii lañ teg foofu ñuy yàq privé bi mhm. waaw président Macky Sall nag la ñuy sàkku ci moom dimbal mu dimbali leen ndax seen ministre mënu président nag moom dafa mel ni dafa yërëm ñi mujj inondé mhm. da leen na mujj yërëm da leen na mujj yërëm critiqué ne kaa ñëw ak ñun ci maître Moussa Diop ba ngi nii sax eh, eh. troisième mandat ba sànq na ko. troisième yóbbu na deux deux deux deux M. voilà. direct news ñëw ak ñun ci li ma loolu expliqué ngi nii. moo di. nee nañu am nañu ay sources yoo xam ne nee nañu gis nga maître Moussa Diop. Mm-hmm. diggante ma Macky Sall ab diir ngi nii neexatul. neexatul de. neexatul de. léegi voilà léegi nag maître Moussa Diop nandite la mbong mbong lu muus muus lu indi troisième mandat bi forcé ko. préfet waaw bu ko defee gars yi ne victime la. mais gis nga njiitu réew jot na ay dossier yoo xam ni Dakar Dem Dikk non société bu fi mu nekk nii. ah déet waay déet waay waay. Ah. kon nag baa du troisième mandat prétexte la. non prétexte la wala bi la doon defar. journal bi nee na prétexte la mais ban directeur général mooy xaru xam ne lii boo ko waxee dañ dax nga koy wax. man moom jaaxal nag. du dëgër fit de. non dama lay laaj. Mm-hmm. <laughs> dégg na lu ca rax. xaw ma ngi ni Omar bun Xataab si laa. Mm-hmm. moom nag léegi moom moo wutu waa ji. Mm-hmm. waaw dégg nga monsieur le maire léegi élection locale yi enquête nee na. Eh, te kaaral gii demul dikkul le statu kan moo ciy profité opposition wala pouvoir bi. si ni mu nekk nii. waaw tax naa pouvoir. ci sama xalaat bu gàtt. day hmm. tax jàpp nañu daat demul dikkul. dafa mel dafa mel ne daa juum de. ah mais opposition ah opposition dëgg. journal bi nee na opposition bii ne dafa mel ni dañ leen a pikiir. non xam nga lool moom du opposition. xool dañ leen a pikiir ñu nelaw seen yaram yëgatul dara ñu ngi nii nguur gi tamit yorinu mbas mi sonal leen lool. Mhm. élection locale yi nekk ci guddi gu bët setagul. tey mais gis nga professeur Moussa Diaw mii politologue bi nee na élection yi buñ ko amalee ci date bi ñu wax. opposition bi Macky dina len dor ndax li nelaw. dor dor ba de Italie. len dox euh, doomu ñoket commune yeb la Macky di <laughs> oui ma. Ah, ana opposition mu commune opposition ana opposition bi sax mu nek ni li ñu chef de l'opposition. chef de l'opposition. 3 milliards enveloppe bi dafa oui ma. duñ gañe dara. opposition bi. opposition bi bañ dem local. ñoom Sénégal opposition dafa neex nag. opposition mu métti ñoom bi ñuy xeex sax ak Macky. teewul Macky nga am yenn escort yi. Mhm. instant bi ñu toll nii. bu nekkulee activiste yi. xeexuñ defuñ dara. waaw loolu kon la Macky war a def. yii. dañ lapp yi métti. professeur bi nee na opposition bi dinañ leen dóor waa ji dana leen conco conco dana leen ak mbëkk dina mel ni match basket de foo toll pañe di dugg Macky dana leen dóor ba ñu wulee jaay <laughs> nañu jóg nañu yeewu de duñ ko def de ah. xam nga xam nga culture Sénégal moom élection mooy bu desee ñetti weer ah. local naka ci gën a raw moom local dangay gis koo xam ne mosul dugg ci benn kër bàyyi ba local yi jot rek. nga ñëw présenté wu. moo tax caution bi nii ñu ko def nii. ñii naan dix ñii naan vingt. nañ ko looloo baax. ajal ajal. bon nañ ko dañ leen dañ leen dóor. fii daal koo leen gëj a gis mu bàyyi ba élection yi ñëw mu doog wàcc ñëw ñu leen seet am lay fulla yi yamale ko dëj ko see àndam mu léegi sax dañoo mature faf xam nañ loolu. yàlla baax na waa seen TV l'officiel defati ngeen seen manin ñoom Fama Ba. ana ñu toll. ah ñoo ngi ci euh, cinq maa la wax nii. mais yow léegi yegg junni te maa taxaw tuuti wala ma dem. ah ñu yegg junni yéen. Eh, eh, eh yow photo tey 24 heures de. monsieur le ah, maire 24 heures. mais monsieur le maire. 24 euh? heures photo wuñ ko tey de. ñëwul ñëwul de luñ ci wax. 24 heures kay li nga ci wax dafa leer président Macky Sall ci boppam moo Mm-hmm. nañ ko indil rapport détaillé le programme décennal 2012 2022 monsieur le maire ay 700 milliards. di ko mm-hmm. def ci ay programme inondation te ndox mi nii nii nii. forage daal di xideen moo tax président Macky Sall nee na muy Kaolack muy Ziguinchor muy Saint-Louis muy Guédiawaay muy Pikine ak yeneen i gox ak yenn quartier yi nekk fii ci Ndakaaru Ndiaye Diop. Mm-hmm. na leer xoolal nañ gaaw daar daar. nañ defar ko waaw. mais hé, eh, eh, Diouf Abdou réseau des volontaires pour le développement de la banlieue. Néna, amna famille ci mbedd bi. ci mbedd bi. mbedd bi. Lañuy toggé fa lañuy fa lañuy toggé fa lañuy ci nord def Kër Massar dégg Kanibas euh, Malika extension mais néna amna famille sonn nañ génn xeetu sonn goo xam ne maar détail yi hmm. tonton Seydou kii kii rapport détaillé yi mu war a laaj ñoo bari. rapport yi. yi ñu war a teg ci table am. rapport yi bu ñu ko tegee ci table ji yàlla bu mu daw. <laughs> yàlla bu table ji mab. table ji mabbu ilaa moom ci boppam bu kat faa kat sant. non laa lay wax de physique monsieur le maire physique laa dal waat nga aja nga ne la muy def jox ko mbëkk bi yàlla baax na waa seen TV l'officiel ñoo leen jaajëfal bu baax gis gis nañ ni ngeen ñuy toppee saa su ne ñoom jaxe